soxna Fatou Bintou Ndiaye euh, ñëpp kontaan nañu fi mu toll nii xel yi xol yi ñu ngi Nimzaat am na ñoo xam ne sax daanaka ñu ngi ci yoon wi dem waaye dañuy may rek euh, tey émission bi suñu yaay Seyna bu Seck di yaayu borom kër gi mhm. nga xam ni moom lii lay bégee tabaarakallaahu tey nag dañoo segere ndax tey dama gis ñii ñëw rek ma gis fi Mouhamed euh, Gueye rakk bu gaan <laughs> ma ne ko ah yow lu la fi indi tey mu ne ma sama waa kër ñoo aye tey mu nekk nit ku baax nekk nit ku dal nawee man nga ñëw ba ci nga taxaw ñu laaj la Cheikh Saad bu abi ak maamam Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ca doxalal. waaw Sayyiduna Muhammad kon nuru na maa ngi maa ngi GP. waaw. ci ci ci Cheikh na Saad Cheikh bu ak maamam Rasulullah. laaj nga lu jaral. Cheikhna Cheikh Saad doomu yaay Mariyam bint Ahmed Abdi ak Cheikhna Cheikh Mouhamed Fadel ul Maami tey jii nekk anniversaire ci bi mu génnee àddina ñaar fukki fan ak ñaar ci yooru yooru alxamis ñu decc ko tisbaaru alxamis en 1917 mais kan la cheikh na cheikh Saad nan la cheikh na cheikh Saad fan la cheikh na cheikh Saad bu cheikh Saad boo ba mu agsi fii mu agsi tey ba nu war ko waxtaane lu defu day waxu lu ay di jàmbat dafa am góor gu ñuy wax maamin maamin nekk xawsu nekk shérif waaye nekk waliyu waaye heure bu tëddee day gént garab sax ci ndiggam ah mu dem nag ñaan lu ñu xamal ko ni ko feebar bii di la daaneel ak di la wéral dara mënu faj lu dul da jël soxna xawsu zamanu jamono bi nekk ci sa ndigg dañ góor gi maamin dem ziyaare ji taalibeem bu ñuy wax taalab Abu Bakar fekk góor gu ñuy wax Muhammadul Aswad joxoon na ko mëlëfa ni ko boo demee ba jëmmi jamono koo ko teg ci kawam bu ko jotee na ko denc soxna mu dem kër taalab Abu Bakar boobu matt la ñuy taal comme am lumière mu dem fa ay fan mëla fa romb ko te da ngay am ci biir kër juróom benni weer doo gis jigéen du la romb yar bu jëkk ba loolu la ah mu jekki-jekki jigéen romb ko xel mi ni yar ci mël fa bu ko Muhammad Azwad joxoon mu ni taalab Aboubacar kii kan la mu ni ko xët na sama doom la mu def istiqaar ni ni ko ndax dooma ko may mu ni ko ganaar ak nenam yépp borom ganaara moom ñu jël xarjet na may ko maamin ñu am ci cheikh nawul maamin cheikh na cheikh Mouhamad Fadel ki nga xamante ni ñëpp d'accord nañ ni xawsul wara min ba ni baras bi muy nekk xawsu addina bi mi ngi ci biiru yaayam ganeseegul addina moom cheikh na cheikh Mouhamad Fadel koo fi gis ci góoru yàlla saaraan na ci leeru yàlla leer gi jàpp na ko bànneexu neexaayu leeru yàlla mu saaraan ci leeru yàlla ba mu des cheikh na cheikh Mouhamed Vaab nu leer gi toll rek moo maîtriser na ko yàlla may ko mu am téeméeri doom cinquante trois garçons quarante sept filles kenn gumbawul kenn pattul kenn làggiwul ñëpp ay wàllu ñoom ñëpp àgg ci yàlla cheikh na mul maamit waaye ñu jékki-jékki boroom bi nga xamante ni mooy jalla jalal wa azal kamal daa di war a yàlla mu ne ah biddéew ngi ni bu tudd almuxtaar ci kaw ku gën a mën a jaamu yàlla ku dàq jaamu yàlla ci jamono boobu yaa koy jur Cheikh Sidi Ousmane taawu Cheikh na Cheikh Ahmed Fadel ak frère ñëw nañ ci pàpp Cheikh na Mouhamad Fadel dékk ka seeni loxo tàllal ko ko ni ko papa ñaanal nu ndax kenn ci ñun jur lumière bii Cheikh na Mouhamad Fadel bi góor ñi doo daw fanaane daw dafa gont daagu dab leen moom Cheikh na mu ni ko ay yéwén li ngeen def war na nekk ittey jullit bu ne war na nekk ëmmay jullit bu ne waaye bu leen yàlla dimbalee kii seen frère lay doon Mariam Ahmed Abdi mooy yaayu cheikh na cheikh Saad jigéen ju àgg ci yàlla jigéen ju ragal yàlla jigéen ju wattu alquran bokk ci rek xeetu rasulillahi alayhi salaatu wassalaam waaye Mouhamad Mbaye cheikh na cheikh Mouhamad Fadel dafa bind lettre ni bëgg na Mariam jox ko ay ndaw bi lettre bi yeggee mu ni leen ay la yéwén man gàntuma gàntaluma waaye nag du ma bu ma sañoon du ma sëy ci këyit nii rek ci ku ma gisul mu yónni ay ndaw ndaw yi dem mu ni leen gàntaluma waaye bu ma sañoon ki may sëyal dama koy gis cheikh na Mouhamad Fadel ñëwal boppam ni ko maa bindoon lettre maa yónnee woon ay ndaw man maa la bëgg man la cheikh na Mouhamed Fadel doomu maamin ak xarcet na di dereti rasulillahi alayhi salaatu wassalaam Mariam it Ahmed Abdin di ko xool ba yàgg mu daal di ni bërët daal di daal di defaraat toogaayam wàccewaat mëlfaam ne ko sang bu tedd bi téeméeri doom yi la yàlla nar a jox te juróogoo leen boo ma mënee assureel ni man ñett ñi may am bu ma ci séyee ak yow buñ ci gënul kenn du leen gën guróog yi nga may takkee maa koy jëndi Cheikh na Mouhamad Fadel d'accord projet ba yàlla accordé ko ñu jël Mariam bint Ahmed Abdi may ko Cheikh na Cheikh Mouhamad Fadel ñu sëy ñoom ñaar ñu jëkk am doom doom bi ñu jëkk am Saddaani la tudd Saddaani da doon annoncé ñaari leer yi muy Suwaadu ak saat bu ndax dundul lu yàgg Mariam jillaat weer yàlla xamal cheikh de cheikh Mouhamad Fadel ni ko biddéew bi wan ci kaw tudd al muxtaar gañee nga ko yow mi yaay jur ki nga xamante ni mooy nekk texe jamonoom mooy nekk jantu jamonom te kooku mooy kan borom saalixiina bàyyi cheikh taalib buya bàyyi cheikh statil kabir bàyyi at atqaana bàyyi cheikh adrame ma ci nguma ngeewul maami allah ji cheikh alxalifa wul du cheikh adrame wul cheikh alxalifa wul du cheikh na cheikh san xoola personnel rek cheikh na Mouhamed Fadel génn dem ci benn baadiya nekk fa di sàbbal yàlla ndax wax nañ ko yaay jur cheikh na cheikh Sadbu yàlla dig na ko ko mu ni yàlla dig na ma cheikh Sadbu te yàlla du ma nax mu fay wéetal yàlla di fa wéetal yàlla Mouhamed Mbay benn bis rek jaam ñi laxasoo seen i mël fa ñëw ba ci cheikh na saraxolle lii lan la ñu ni ko ay la yéwén Mariam mucc na mu ni kon indil leen ma cheikh na cheikh Sall ñu ne ko Mariam ki mu indi jigéen la mu ne yàllaa ma dig cheikh na cheikh Sall bu te yàlla du ma nax kaay leen dem ñu àndandoo moom cheikh na ñu indil ko liir bi mu uuf muy jigéen mu ni jigéen baax na ndax texe la waaye xoolal leen ma rakkam cheikh na fu ñu koy xool mu ni bu jigéen amee doom ba pare yamuy àndal nanu xool rakkam foofa ñu ñëw ci ànd bi xool benn buul bu doy war ñu jël buul bi muy kéemaan ñu yóbbul ko cheikh na cheikh Mouhamad Waadul Maamin nakañ mu leen seen ñu téye buul bi mu ni bëreet ñu agsi mu téye ko rek ni leen kii sa mu nekkoon ñu ne ko dañ ko boole ca yan waroon وساد الورى وساد الشهود لآل العالم سمام لي وسجان الفرل الإمام الطالب وحياة الجيل مختار وساد الورى واو وساد السعود ولد محمد فاد الأسود الإلهي وساد الورى وصادو شهود لآل العالمين maamu Cheikh Aya doomu Cheikh Talib ya doomu Cheikh Ibrahima Cheikh Sadul Adil doomu Cheikh na Mouhamad Fadil wasaare ki may wax mooy maamu Alaaji Cheikh Al Khalifa borom gëlëm borom jamono borom jamono maa ngi Cheikh na Cheikh Sadou maa ngi Cheikh جامع النفس نداء الشيخ محمد العين ولد الشيخ فيا ولد الشيخ سيدي بويا ولد محمد عبد الرحمن كيما يوقف موي مامو الشيخ ذاتي بحيد دوم الشيخ ملاقب دوم الشيخ حضرامي بانو الشيخ محمد وادم مامو الشيخ البحيد دوم الشيخ ابو الشبيب كي موي مامو الشيخ القطب دوم الولي دوم الشيخ متقبلا دوم الشيخ الشيخ محمد وادم خاتم الرسلان ما له النذير أكرم به هو البشير والنذير خير الخلائق على الإطلاق وابن عبد الله بن جفاقي وخير شيخنا الشيخ من شيخنا الخبيث لا شانس صفر وسعاد الورى وسعادنا سعودي يا كرم محمد علي وإنريا بشير لشر بيا فأنت xadim ndaw amin Joseph Bounana maamu Cheikh Bidaati doomu Cheikh Taalib Buyo doomu Cheikh na Cheikh Tan xaw sula di hammi borom ñu Cheikh na Cheikh na Cheikh Bidaati borom wilaya ga Cheikh na Cheikh Bidaati borom mak ga Cheikh na Cheikh Bidaati borom maqama ya Cheikh na Cheikh Bidaati xadim ndaw amin Cheikh na Cheikh Bidaati العين ومنها كسمرها وعرضها تفي الكون من كن تسم تسم عصا عليه سعودي ولد من فادل كذاك إليك الذين لأتوا معين فعجله قضاء المرار مع سعد يا كريم محمد لا يوي شعنا شخصاد وحبينا شخص صوفير وسعدنا سعودي يا كريم محمد انك ببابي شيخنا يا دخك الطيب حبابي يا شيخنا يا دخك محمد أناك حبابي يا شيخنا يا دخك وخلعن يريد الزوال لكل العالم دوم الشيخ طالب ويا براي ماك الشيخ مؤمن ملايين سيدنا محمد جادعي ما شاء الله يا شيخنا أسغدن أسغدن أتاك وخلعني أسغدن أسغدن أتاك شخصات بأسغدن Mouhamad Baad. waaw waaw booy ñaari tër nee na ma wax la daanu na amatul sago. mu Cheikh Yirim Numbaan. jeex na tàkk. doomi bàjjan aana. ma nga yuuxu sànq ba léegi Mamadou Abdalaay. maa la wax loolu mu Cheikh Yirim. Uh-huh. mu Cheikh na Cheikh Saad. yuuxu na daal daanu na nee na. xoola. Uh-huh. Cheikh na. Cheikh Mouhamad Fadel. ni kii fu mu nekkoon. bu ngeen ko suuloon suul kii texeel ak addina ak alaxira kii Saad bu la daal di jël paaka. jam ci bul bi xotti cheikh na cheikh Saad bu génn ci biir bul boobu ku yàlla bind Seydina Muhammad mais ci sa biiru yaay ngay mate ba mu des cheikh na cheikh Saad bu ci loxo way juróom cheikh na cheikh Muhammad Fadil la mate yaa man yagisuni bi milqiyaasi albashar taqaasar fa inna al amraka anka mustatar li annana gaybun fi gaybin kalxadar wala yarana ila xaaliqi albachar gàcce ngaalaama borom saalixiina wa xeerti cheikh ne cheikh sadbu wulu mariam ahmed abdin sëriñu sëriñ see ngoogu la waliyu la aalim la qutbu zaman la xawsu la kooku mooy borom saalixiina mais kon système prématuré bu nekkee am na cheikh na cheikh sadbu bi muy ñëw kon prématuré la ñëwee dañ daan jël xar ray ko gi di ci laxas cheikh na cheikh Saad waaye balaa muy gane si àddina ñeent fukki guddi bu weer wi boo xoolee ñu gind ci Mouhamad Saad bu moom la ñu affiché turam ci jant bi affiché turam ci weer wi ñeent fukki guddi balaa cheikh na cheikh Saad bu di gane si àddina Seydina Mouhamad Mariam bint Ahmed Abdin am na ndam jigéen ju ñuy moo rew lii Mariam bint Ahmed Abdin ci ëmb bi cheikh na cheikh Sadbu gannaaw bi mu ganesee àddina balaa bis biy balaa bis biy dellu yaayam Mariam génn na àdduna te lii gaa ñi dañ ci war a bàyyi xel ndax bëgg cheikh na ak cheikh naay sama sëriñ wala buñ ko tuddee nga tëb mbëkk daanu mais jéem a xam sa sëriñ mooy kan ci yàlla moo gën a wóor cheikh na cheikh ñu jël ko moom ak seexam su aadu ndax Mariam ñetti saat la ci am saat daani su aadu saat bu ñëpp yi te ñu yóbbul seen tante bi réew li Mariam mooy xumuna ñu jox ko ñaari xale yi pour mu leen di toppatoo ak di leen raxas suwaadu bu jooyee ndax xiif buñ ko joxee ween nàmp ba nelaw mais Cheikh ne bu su jooyee buñ ko joxee ween day bañ ba mu am ñetti fan tàntaam ragal daal di daal di koy yóbbuwaat ci papaam ni ko ku jigéen ka nangu na nàmp mais ku góor ki nanguwul nàmp mu daal di xool cheikh na ci liir bu am presque neuf jours xool ko xool ko xool ko fi tes ka baaraam bi cheikh na sourire ci jamono boobu daal di ree mu ne xam naa lan la dafa mere tàntaam ndax dan ko boole ca yanu waroon suuli mu yaakaar ni tàntaam daf ko bëggoon suul loolu la ko meree moo tax nanguwul namp ci weenam tegal leen ma ko fii ñu teg cheikh na cheikh Saad ci wetu cheikh na cheikh Mouhamad Fadel bu demee ba xiif cheikh na Mouhamad Fadel day wax bismillahi rahmaani rahim tufli ko ci baaraam bi sexal ko cheikh na cheikh Sadbu matière baaraamu cheikh na cheikh Mouhamad Fadelul Maamin bu laalee cheikh na cheikh Sadbu ci làmmiñ rek meew mi sànni mu sex baaraam ba màcc nàmp meew di génn mu nàmp nàmp nàmp ba suur. mu daal di jël baaraam bi wax alhamdulilahi rabbil alamin daal di ko ciy tufli saxal ko cheikh na cheikh saad bu ndox génn mu naan ca ba mandi moo tax cheikh na cheikh saad bu xoola ci weenu wilaya cheikh na cheikh mouhamad fadil la nampe ba fer waaye ci weenu wilaya cheikh na mouhamad fadil la daan lekke kon mooy ki daan lekke alxayu di naane alqayumu wa xiir ci cheikh na cheikh saad ba am ñeenti at Mohamed quatre ans xale bu ko am looy xala def foow yi Cheikh ne Cheikh Saad Bou am fowu naar ñaari xaritam ñëw ni ko Cheikh na kaa ñu ànd ci xabila bi Cheikh na jóg dem ak ñoom doxul dix pas suuf téye ko comme na mu doon téye Zuraxata ibnu Malik ibnu Nawfal mu ñaan yàlla suuf bàyyi ko mu gëdd dem suuf téyewaat ko mu ñaan yàlla suuf bàyyi ko ñaari xarit di ko forcé mu ni leen yaa saaxiba ya daani inni ubaydu daani zajrun bi naasi alqur'ani amma la baati nufuusi wa innani qad daani xawfi min yowmi tanaadi an xubbi lahwi alcawaani amma la baati nufuusi الذين كفروا أن السماوات والأرض انحدرت قد زجرت بناصر وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمن بياهم ويا ياهم ويا خير طارق ويا من الأرزاق من دون نمط أسعد الإله وسعد الورى وسعد الشهود لأهل الأمم وسعد القديما لأهل المرام بمن الكريم لنيل المرام وخيرت شيخنا الشيخ بياهل ويا ياهل ويا خير بارخ ويا من لنا الارزاق من جود من سيدنا محمد يقول لشيخنا الشيخ سيد رسول الله يا عقلنا موم شيخنا الشيخ خاتم رسول الله ما وحده النذير أكرم به هو هو النذير خير على يحيى على الانطلاق مام ما يجوم عبد الله بالاتفاق سيدنا محمد أها سجلتنا في القرآن شيخ سعد وأمل أفعال شيخ سعد ونعينا وإنا قد تعاني خافي اليوم مدد هاني أرغب معاملة واو فجر دينا سي قرآن شيخ سعد أمال فاتش نفوسي يا صاحبة أين sama ñaari xarit yi dima ma tiital di ma xoqatal muy àddina ak bakkan yaddaani dem leen bàyyi ma inni ndax man cheikh na cheikh Saad Bou ndax man cheikh na cheikh Saad Bou bu doyadi la ndax man Cheikh na Cheikh Saad bu jàmm bu doyadi la. zajrun binaasil quraani. yàlla moo ma jonjale ak alquran man Cheikh na Cheikh Saad bu lépp loo xamante ni yàlla nga koy tere kenn mësuma ca gis lu yàlla digle kenn mënuma ca. ci loo xam ne alal la ak bànneexu bakkan mu ni wa inna nii naka man Cheikh na josat bu neena wa inna nii xaddaani wuld Mariam min taxmet ak di borom nib jaat ak saalixiina la chance de son père aji taxal baayam ñëpp yee moo ñu koy firil Cheikh ne Cheikh sat bu neena wa inna nii xaddaani lan la Cheikh na wax xoola saadal wara am juróom ñetti at huit ans xiir ku la wax nag ni Cheikh Saad bu jàngul ci firikat yi xew dalay nax Seydina Muhammad sallallahu moo gën ci nit ñi te bi mu amee quarante sunu boroom daf ko gëdd ni ko jàngal Jibril fekk ko ca xaaru Irak ni ko iqra mu ni ko lan lay jàng yàlla ni ko demal nga dóor ko jibril ñëw xam ni kii mooy sangu addina ak alaxira mu ñëw xaw ko mboq mboq bu yolom ni koy xaram mu ni ko maanaa bi xaar xalan lay jàng jibril dellu ci yàlla ngir ñeewante sang bi ni ko nee na xamul lu muy jàng mu ni ko boo yeggee dóor ko jibril ñëw xaw ko mboq mboq bu xaw a dëgër daal di koy jalax ni ko iqra bismi rabbika alladi xalaqa xalaqa al insaan min alaqin iqra wa rabbuka al akramu alladi allama bil qalam allama al insaan na bi xam li nit di jàng ak li nit dul jàng. cheikh na cheikh Saad. wax yartu. dem ñu yóbbu ko ci sëriñ bu ñuy wax Hamdi Zeyn Hamdi Zeyn moo ko tegal aliwa ci peggam jàngal ko baasin mimara ba ar rahman. allama alquran xalaqa al insan allamahu lbayaan Cheikh Saad bu teg àlluwa gi ni ko ay la yéwén def nga ci man xam-xam waaye à partir de tey dootoo ma jàngal sëriñ sama wax ji jeex na ndee nga yàlla mooy borom alquran yàlla mooy xamal alquran ku ko neex yàlla dana ma ko xamal ndeysaan ci période boobu nag seexam suwaadu nga xam ni moom rek la bokkal ndey ak baay ndax sàddaan yi dundul dafa dafa daan ñëw rek tiim jooy bu nekk suwaadu lan la mu ni doomu baayam yépp jàngi nanu dinanu amee xam-xam bu nu ñëwee mu nekk koo xam ne xamul dara ci seen biir benn bis suwaadu ñëw tiim ko jooy rangoñ yëpp metti lool bay toq ci kaw kanamu cheikh na cheikh Saad Bou na ni xiifeet ku laaloon jigéenam bi nag am nga problème ni ko suwaadu ndax day taw mu ni ko samay rangoñu bët ñoo lay dal aa ah! ni ko lu la naqari mu ni ko sa doom yi bàyyi yëpp jàngi nanu bu jógee am yi xam-xam yow nga tëdd fii di nelaw mu ni ko suwaadu ñooñu ñoo soxla xam-xam ñooy wër xam-xam waaye man Cheikh Saad bu soxlawuma xam-xam xam-xam moo ma soxla wëruma xam-xam xam-xam moo may wër si soo du xanaa xamoo fii may tëdd di nelaw yoor yor bu jot arafi alquran yi dañuy jóge luwal mahfuus di wàcc benn par benn di xar sama dënn di di ci dugg mu ni ko wa nawmiya xawdul xaybi in kuntu naiman wa jalla jalaalu xaybi an xaali nawmiya Seydina Mohamed cheikh na cheikh Saad Bou bul Mariam bint Ahmed Abdi bi mu amee huit ans juróom-ñetti at su laalee matt bu wow koŋ day nekkaat arbre d'origine cheikh na cheikh Saad bi mu amee huit ans jigéen bu ko romb dana xam kii di dem góor la ëmb wala jigéen cheikh na cheikh Sadou bi mu amee huit ans bàmmeel bu mu romb dana xam kii ci bàmmeel bi ndax dañ koy mbugal wala dafa nekk ci ay xéewal huit ans la tëgg dënnam ni bi qalbiya sirrul kawni wal amru mustafin wa amriya amrullahi muskaana amriya wal mariam tahmed abdi nee na bi qalbiya ci sama xol bi bi qalbiya sirrul kawni wal amri mustafin lamriya amrullahi maskaana amriya bi qalbiya ci sama xol bi sirrul kawni yàlla dëxëñ na ci mbooleem mbooti sikkari addina bi wala amru mustafin te mbir yi danoo làqu ñu ni ko saadal wara mu ni wa amriya amrullahi maskaana amriya ca samay mbir mooy mbir yàlla ca ba muy door ba léegi ni wa nawmiya ca samay nelaw xawdul xaybi man di kumpa la in kuntu naa iman ndegam man Cheikh Saad Bou maa ngi nelaw. wa jalla jalaalul xaybi. wa jalla jalaalul xaybi an xaali nawmiya. Adja Fa Binte mu ni yàlla mi màgg tey borom kumpa heure bu ma tëddee man Saadal wara moo may dikkal ci samay nelaw. mu ni wa lastu la del akwaanu raayi haqiqati wa in qusta vil mawla taraani faaniya boo may xool ci biir nit ñi dëgg dëgg dooma gis te dooma xam. waaye boo ma toppee ci yàlla ñuy dem danaa dem ba foofu damay percer nga taxaw ñu ni ko Cheikh na Cheikh Saad bu tax mu ni danaa dem ba foofu soppaliku nekk leer seey ci biiru yàlla xoolal dimension boobu Cheikh na Cheikh Saad nga xam ni Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel mooy sëriñam te mooy baayam mu dagg njureel gi jënde ko ak taalibe saadal waraa nee na wa anni bi hamdillahi najlin li cheikhina maa ngi sant yàlla bi ma yàlla defee ma doon doomu cheikh na cheikh Mouhamed Fadul Mamin wa yëg te doy na ma li qurbillaahi ci may jege yàlla anni muridohoo naka ba ma jébbaloo ci moom ba pare nekk taalibeem njëkkanteeg waxtu wi ah, dama bëgg ñu euh, tourné foofu ñëpp ñaa ngi bëgg ñaa ngi kontaan waaye may ak digganteem moom ak maamam Seydina Muhammad